Bonjour, chers fidèles amis internautes de seninfo.net et Seninfo International. Bienvenue dans cette page de l'information. Dans le but d'accompagner le dialogue national du 28 mai prochain consacré à la réforme et la modernisation de la justice, le président de la République a procédé hier jeudi à la mise en ligne d'une plateforme citoyenne dénommée Jubanti, redressée, rectifiée, corrigée un espace d'expression qui permet aux Sénégalais de partager leurs expériences, préoccupations et suggestions afin de guider les réformes à opérer pour une justice plus juste et plus humaine. Ainsi, dans ce message, si après, le chef de l'État invite les Sénégalais à se rapproprier. Visite officielle, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a quitté euh, Dakar ce matin pour effectuer des visites d'amitié et de travail au Cabo-Verde et en Guinée les 24 et 25 mai 2024. Euh, Le député Guy Marissagna, désigné président de la commission comptes publics et audits de la CDAO, il indique dans un communiqué qu'il est chargé des, des questions relatives au rapport d'audit annuel des organes et des institutions de la communauté à la coopération avec le groupe d'action intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, sur son mandat à la coopération avec le comité d'audit de la CEDEAO à la mise en œuvre du règlement, du financier de la CEDEAO en ce qui concerne le budget annuel et les comptes de la communauté. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a fait état de la renégociation des contrats pétroliers et miniers. Euh, Abdoul Aziz Diop, membre fondateur de la coalition Publiez ce que vous payez, a indiqué qu'il y a une trentaine de contrats gaziers et pétroliers déséquilibrés. Euh, pour rappel, l'ancien régime a toujours soutenu retenu que plus de 60% de l'extraction reviendrait au Sénégal, mais pour le président Diomaye, il choisit de renégocier ses contrats au profit du Sénégal. À présent, parlons sur la page internationale. à RDC trois jours après l'attaque de son domicile lors d'une présumée tentative de coup d'État. Vital Kamer, ministre de l'économie dans le gouvernement sortant de la République démocratique du Congo, a été élu mercredi 22 mai président de l'Assemblée nationale. En États-Unis, l'ex-candidate républicaine à la Maison-Blanche, Nikki Haley, qui a beaucoup critiqué Donald Trump euh, par le passé, a annoncé euh, qu'elle voterait euh, pour Trump à la présidentielle de novembre. Et maintenant, terminons avec la page sportive. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a récemment dévoilé la liste des 26 joueurs convoqués pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2026. Cette sélection est marquée le baptême de de l'attaquant Sheriff Ndiaye qui évolue aux étoiles rouges de Belgrade. Les reçoivent les Congolais au stade Abdoulaye Wade le 6 juin avant d'aller à Nouakchott pour jouer contre la Mauritanie le 9 juin.